moom mooy wax ci français li nga xam ne moo ñu yëkkati woon tey ba ñu ñëw fii ci conseil constitutionnel bu paree man ma tënk ko ci wolof comme ça su ko defee ñu ñu yeeweeku voilà président Thierno Alassane. Euh, chers membres de la presse merci d'être venus massivement répondre euh, à cette euh, exigence pour l'information républicaine vous aurez d'abord constaté que nous sommes non pas à jam Diamniadio mais au Conseil constitutionnel pour déposer nos requêtes. Donc le débat sur la participation au dialogue, je pense, est définitivement réglé. Nous sommes venus déposer chacun, en ce qui le concerne, une requête pour constater la carence du président de la République de prendre les mesures qui s'imposent pour convoquer euh, l'élection présidentielle dans les délais requis. Cette carence va entraîner notre pays dans une situation relativement grave, puisque elle pourrait non seulement nous amener à une situation où le 2 avril, un président élu n'est pas encore installé, mais on ne sait même pas jusqu'où, compte tenu du dialogue qu'il a ouvert, on pourrait aller. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel, qui a déjà dit dans son avis un c du 15 février que la Constitution actuelle s'applique dans sa plénitude, doit constater cette carence-là et le risque qu'elle fait courir au pays et en prendre les dispositions nécessaires. Premièrement, de constater que le 2 avril, M. Macky ne sera plus président de la République et anticiper sur la situation qui pourrait en résulter. Deuxièmement, faire prendre à M. toutes les dispositions utiles pour que immédiatement les euh, l'élection présidentielle puisse se tenir. Et troisièmement, constater que tout retard mis à exécuter ces décisions résulte non pas de circonstances graves ou de situations qui échappent au contrôle, mais de la seule volonté de, du président Macky et d'en tirer toutes les conséquences nécessaires parce que quand même on a vécu des situations qui nous ont, ont amenés à au jour d'aujourd'hui. Je vous, vous remercie. Quelle est la meilleure date pour l'élection présidentielle Monsieur, euh... On l'a dit, le Conseil avait poliment invité le président de la République à fixer la date dans les meilleurs délais. Vous, de ce qu'on dit, de ce qu'on dit, le juge n'invite pas. Ils ont voulu être polis. Ils doivent ordonner. Et par n'avoir pas été suffisamment clair avec quelqu'un qui aime pas la claire, qui aime le, sombre, ils lui ont peut-être laissé une porte. Cette fois, il faut que le conseil soit très, très clair et précis. Un, M. Macky Sall doit convoquer les, fixer la date. Sinon, le conseil doit lui-même fixer la date. Le conseil a la compétence et la capacité de fixer la date devant le refus manifeste et la carence de Macky de fixer cette date. C'est notre première position. Le Conseil doit fixer la date. Deuxièmement, le Conseil doit anticiper sur les risques de crise en constatant que monsieur Macky Sall peut nous amener au 2 avril sans qu'on ait un président installé. Et anticiper sur le vœu qu'il a de se faire un intérim au-delà du 2 avril et anticiper pour éviter que le Sénégal soit dans une crise. Si le Conseil ne prenait pas toutes les décisions de droit qui s'imposent, il participerait à, au chaos qui est prévisible et que tout le monde voit. Et je ne pense pas qu'il est de la responsabilité du Conseil, étant le régulateur de l'élection présidentielle, d'assister sans réagir à ce qui pourrait être une crise grave pour le Sénégal. C'est sa responsabilité de prendre les décisions qui s'imposent. C'est pourquoi la requête. Encore est prévisible, donc qu'est-ce que vous comptez Je vais laisser. exactement Je vais laisser. Dernière question. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est d'abord, nous sommes un pays de droit, gouverné par la loi. Le Conseil a dit que la constitution actuelle euh, s'impose dans toute sa vigueur et dans toute sa, et que le président Macky Sall doit quitter le 2 avril Le Conseil doit en tirer les conséquences. C'est ce qu'on lui dit. Et nous sommes un pays de droit. Avant de recourir à quoi que ce soit d'autre, nous faisons appel à, aux institutions et aux juridictions qui doivent dire le droit. En l'occurrence ici, le Conseil constitutionnel. Je vous remercie. salaamaaleykum mbokk yi. on est là pour la requête. merci merci beaucoup euh, mbokk yi ñu daal di koy tënk ci wolof. gannaaw ba ñu gërëmee Thierno Alassane Sall président Thierno Alassane Sall ak candidat yii fi nekk président yëpp yoo xam ni candidat lañu à l'élection présidentielle yi conseil constitutionnel firndeel ci décision ñuy wax ci tuuru candidat yooyu yëpp li ñu yëkkati ba ñu ñëw fii tey moo di moom Macky Sall moo ngi ñuy xaar ci pale ba depuis 11 heures yónnee ñu ay invitation ni dafa ñoo bëgg a recevoir nee na day recevoir 19 candidats yi ci 19 candidats yooyu fukk yi ak juróom benn bokk ci collectif bi ñuy wax FC 25 nee nañ ko du ñu wuyu ji ci invitation ndax du ñu waxtaan ak président boo xam ne respecté woo sa constitution te ñu mën ko tudde président hors la loi ndax ku respecté wul constitution mooy respecté wuloo loi ñu ne ko jamono jooñu mu ñuy xaar dañuy ñëw fii ci conseil constitutionnel pour indi fi benn recours boo xam ne dañu koy jébbal conseil bi ni ko ñoom conseil constitutionnel le 15 février dañu génne décision ci décision bi ñu ni les autorités compétentes autorités compétentes yooyu mooy ki ci jiitu di Macky Sall ñu ne ko nañu jël dans les meilleurs délais mooy délais yi gën a gàtt laata le 2 avril di jot te le avril mooy bi mandat bi di jeex ci diggante boobu na ci jël jàpp àpp boo xam ne ci la ñuy def élection présidentielle. ñu gis ni ba ñu ko ko waxee ba tey le le 15 ba tey jii le di le 26 fukki fan ak benn président Macky dafa toog. jógul yënguwul yéeyu ci yàbbiwu ci waxu ci jëfu ci raw rax ci dolli ak li gën a grave bi nga xamee ni ñu ngi koy xaar mu jël délai bi moom mu ni déedéet dana def waxtaan waxtaan woo xam ni dana ci boole candidat yi dana ci boole recollets yi dana ci boole spolier yi dana ci boole communication traditionnelle yi dana ci boole ASC yi ku ko neex dugal ci ni bu loolu jeexee lay delluwaat ca conseil constitutionnel pour ñu doog a jëf wala ñu décider ñu ni ko loolu ñun du ñu jàpp ni lu méngoo la ak li conseil constitutionnel wax moo tax ñu ñëw ni conseil na jël décision ni benn ba mu joxee Macky Sall ndogal wala jox ko ndigal rafetal nañ ko sax ba ni ko donte sañ amoon nañu sañ-sañ ni ko jëlal dat dañu ko rafetal ñoom amoon nañ sañ sax jëlal seen bopp dat waaye ñu ne ko delloo nañu la cër bi defal waaye comme wax nañ ko deful ñu ñëw ni conseil constitutionnel constatel li ñuy tudde ci tubaab carence mooy kii nga jëlloon dogal matu ko mënu ko ne nga ko defal matu ko mënu ko bëgg ko mu ngi tendeefal mu ngi toog di bañ a jëf yow mi moom kaddu gi nag yow la ñu ñëw ñaan nga jël date nee nañu conseil constitutionnel jàppal dat datu élection ndax yoon may na la ko li tax yoon may na ko ko bokk na ci moom conseil constitutionnel moo ko waxal boppam ci décision wu 15 février considérant 19 conseil constitutionnel moom moo ni nangu na ni mooy bànqaas bi nekk ci réew mi boo xam ne bu réew mi jëmee ci crise ci ay jafe-jafe ci ay risques ak ay danger yoon may na ko ngir risque yooyu ñu bañ caa yegg mu jël ay ndogal jël pouvoir bi ñu ko jox ba mu mat sëkk moo tax ñu ni ko na jël pouvoir boobu pour jël dat pour ñu dem ci élection présidentielle deuxième bi ñu ni ko ñëpp xam nañu ni président Macky Sall mandaam dina jeex le 2 avril te benn minute mënu cee yokk te mu ngi toog deful dara jëful bëgg ñu yegg ci le 2 mu gis ni crise am na président amatu fi falu ñu beneen président réew mi nekk ci guuta loolu mu jëm nag la ñu ni la ñu ni conseil constitutionnel balaa ñu caa yegg ci suñu tur ak askan wi nga xam ne moom la ñuy waxal nee nañu conseil constitutionnel na décider mu wax ñu yoon yi ñu war a jaar mu wax ñu loo xam ne moom la ñu war a anticiper teg ko ci ay dogal pour que réew mi du yegg ci foo xam ne fii amuñu président bu bees te président bi génn dem na moom am na ndogal boobu bokk na ci li ñu ko laaj tey mu mu anticiper wax askanu Sénégal fii ñu jëm fan la ak bu ñu ca yeggee ban dogal lay jël ak naka la ñuy def sax ba bañ caa yegg loolu mooy li nga xam ne tey yëkkati nañ ko ànd ci ak fukki candidat ak juróom-benn yoo xam ne tey dañu décider devant l'histoire et devant le pëpp ñëw fii pour jëmmal loolu ci jàmm. candidat yi dañu fas yéene lépp lu ñuy def ñu tënk ko ci constitution dañu jàkkaarloog président boo xam ne du respecter suñu sartu réew waaye ñun dañu fas yéene lépp lu ñuy def. ñu tënku ci biir constitution bi moo tax ñu ñëw laaj leen ko ñoom ñoo yor kàddu gi ñoo yor baat bi ñoo yor pouvoir bi pour que bu exécutif jëful législatif jëlul responsabilité am ñoom la judiciaire ñuy beneen bànqaas bi nga xam ni dina dina équilibrer réew mi et dina jox sénégalais yi seen àq. par rapport ak seen seen bi ngeen wala. xam nga ñun dañu wax ni duñu dialoguer ak Macky Sall waaye dañuy dialoguer ak le peuple sénégalais démb gis ngeen ni bés boobu nga xam ne moo doon bésu vote le 25 février. te Macky Sall foqati ko ci askan wi nangu li nga xam ne moo doon li gën a rëy ci askan ci démocratie génn nañu ci biti demoon bëgg def vote symbolique mu génnee lu mu am ci policier pour gantal ñu ko waaye dem nañu vote ji fépp fu ñu mën a wote won ko ay def ko ànd ci ak sénégalais yi loolu itam tey la ñuy bëgg diggante tey ak suba ñu ngi waxtaan ak ñi nga xam ne mooy aar suñu élection ak waa société civile yëpp ak F24 ak bépp force vive bu nekk ci réew mi boo xam ne am nga ñu nekk sa ginnaaw ñu ànd ñun ñëw def suñu jaloog du peuple sénégalais dialogue gu dignité dialogue gu démocratie dialogue ngor ak dialogue boo xam ne wute na ak folklore ba muy def ak théâtre ba muy def grand théâtre fële la koy defee jam ñaajo waaye mënoon na yem fii rek grand théâtre ndax loolu ñuy def yëpp théâtre la ndax lañu fay décider mu fay tukkee mënul gën a rëy décision conseil constitutionnel mënul gën a rëy euh, conseil constitution bu Sénégal jërë ngeen jëf merci